عشر بان telefon sone na ma chérie wuyul ki ne yoo yaay woon naa la dem wuyu woo dancing in the koo tey sa loxo bu ma nuyu mu xew ko gaaw non daal yow yow xool ko sa bopp ak âge bi nga am. Hmm. waaw waaye ma xew. ñu ko yow est-ce yow xool nga xool ko sa bopp baax. man gis naa man boobu kay. ñu ko yow xanaa xamul man nga. xam nga li gën a bon ci àdduna mooy mag muy fen looree na de ñoo ko bàyyi fàttalikul ba ngay dugg ci kër fii ba mu la bëggee jël wax ñu ne dégg naa ko lu ne dégg naa ko lu ne wax nañ ma ko ma gëm samay bët jël la ngir dimbali la. waaw ah, gëmul gëmul ba léegi rek gëmul ba léegi. mais gis naa ni kër gi mi ngi toj te li fi am lépp yow la ñu ko xam nga yàlla la gën a ban ci àdduna kuy jaxase ak kuy fen ñu ko la moo tax nga dem si ay sat di ma jaxase ak sama jabar di ko wax di n'importe quoi su may doxaan la mooy sa yoon ban intérêt la amal su may doxaan pourquoi nga nettali ñoo ko bàyyi ma ko jëmm nga war a fekk weer si est-ce que xam dama lay dàq ci kër bi tey. wax bàyyi ba ma pare nga wax yow jeexal nga ci kër bi tàkk loo fi am dinaa la ko fay. loo fi am dinaa la ko jox nga abal ma sama kër ndax yow su ma la bàyyi ci kër gi sama musiba mooy ne ci kër gi ndax kër gi li fi xew lépp yow la dolli dàq naa ko yaa des ci yow nga jàpp ni pare nga ci kër gi bul wax préparer ses bagages nga génn sama kër fii maa fiy dogal nag sama kër la man maa la fi andi woon ndax li ngay wax li nga fi def lépp je suis au ndax koro jël nga dossier Aïssatou àndil ma ko du mu jugee Chine te loolu santuma la ko kon yow fankat bu man nga xam naa li ngay ruube ci kër gi yépp préparé dàq naa tey ci kanam tuuti nga préparé say bagages la dem kenn mënul revenir ba ma baal la. waaw bëgguma bëgguma mu mu dàqee bëgguma man fan laa jëm. mais yaa xam foo jëm ñu ko bàyyi yaa xam foo jëm. moo ko man yow laa xam yow laa miin. te dëkk bi man dëkk bi ñëpp xam nañ la su ma am ak dëkk ba léegi man man laa wax man laa wax dëgg ba mu bëgguma bëgguma xool si yàlla li ngay def li ngay def yëpp ay ay waxi ay waxi xam naa ne sa xol xam naa ne sa xoloo iñaanoo yow nit ku baax nga man yow laa xam yow laa miin ma ko man xaw ma man mosuma dëkk bi yaa ma dëkk bi di ko jox xaalis ma téye fu mu ma ko man boo ma dàqee fu laa jëm damaa juum rek nekk erreur rek. ko ñu bàyyi. problème yi ma am sama adduna yëpp yow yaa ma ko teg. c'est vraiment dafa doy c'est fini maintenant. de façon li ma la wax du ma ci revenir préparer ses bagages et puis nga dégager parce que je suis tellement fatigué sonn naa trop. ñoo ko guddi ñoo ko bàyyi bëccëg. vraiment da nga maa sonal ñoo ko bàyyi jeex na ko vraiment kit. quitte la maison c'est fini. non quitte pas parce que mag mag day wax dëgg. non ne quitte nga sama kër donc préparer ses bagages nga dem. a et puis nga jug nga dem ah donc. de. man dem moom laa mënul ma gumba dem moom nga rey ma sax moom wër na yaa ma yëpp ay say yëpp ay yi jëm jëm kàcax du ma ko def fii laa man dew ma de yow sama sa gën ma de gën saal ñoo ko bàyyi gën ci oh. gën. doo doo koy sànni doo doo doo koy gën a gën a ah ah. waaw na ko bàyyi la. ah. na ko bàyyi. ah lan la. police yóbbu police. police. yóbbu di police. ñu ma. faj. waa jóga jóga ma toog ci kaw jóga. waa jóga. waa waa jóga jóga. ba bari la lu xew. fii léegi jàpp dër dër bu bëgg a dee. tuur loo def. il faut xoo ma ko. loolu mu nekk. xool xoolal xoolal xoolal sama sama ween bi. ween. sama tissu bi sax mu dër na ko. tuur. mu ko baal fenn. waaw loo ko def. man dama war a dara. mu ko ma ñëw ni ma dama da ngay ñibbi dëkk boobu. ndax ma ñibbi nee na damay dàq. ñibbi woo bouse woo maître. maître bouse woo ko. su ma dàqee. duma kii duma lekk ginaar duma amati xaalis. yow demoon na sa xol sedd foofu nga say rongañ nga jóg toog ci kaw. naa dem fenn lekk ay ceeb ay ay jërë nga toog ci côté bi jógal. dama mën ba ba toog fii. waaw noppi dama toog du maa ngi fi a dem ci kaw bëgg a dem taxut dem moo dem moo tax nga dem. man damaa mënatul dem waaw léegi demoo jógal nga toog ci kaw. aw ma dóor yi ma dóor fii foofu say ronga. ah man laa ko def. dafoo ko dara jógal nga toog ci kaw demoo fenn lan moo tax ngay def def moo tax bu ñu fekk maa ne ma gëy yaa jaxase kër gi. déedéet yow wax ma li nga def rek wax ma li nga def xam nga yow da ngay def ay toj-toj te yow sama xarit nga. kër gi moom doo ko bousee mett wax ma lan la. ga kii bi li ma def kii bi ma yónni woon kàpp yi ma yónni yi ma yónni woon yi ma wax. waaw loolu lu mu doon nii. ah mais moo ko def. ah waaw ko def moom moo ko def moom. waaw ku ko def daal ku ko wax la bëgg. waaw waaw ah, kay. xam nga moo tax bëgg laa dàq. ah secret yi ngay génne moo tax bëgg laa dàq. waaye yow buuse woo mais suñu ko information bu am rek nga jox ko. yow yow li ma waxoon noonu loolu tax mu mën a damay tax. yow la sa xol seet buuse woo mais. doxaan ba bañ ko wax. muy doxaan. ya moo doxaan nga wax ko. muy nii yow def nga wax ko te mu ko def ko doo ko wax. mënuñu si yow dara muy nii mënuñu si yow dara bay doxaan. dara mënu ko si man na xool bàyyi rek. man nii rek yow tooga. buuse woo mais. buuse woo dara xool bàyyi. dama ko ma jaaxal loolu léegi ma ko ma lay dóore. jaaxal jaaxal jaaxal ñu ko bokkul quoi. suñu ko la. foo koy bokk ah. yow nag yaa ngi bëgg a ëppal de. yow koy bokk. xam nga mel ni mu ngóol bu rafet yi nga naan mu bokk koy bokkante. moom moom mu la bokk fii. xam nga kenn ñaar nee mu la rek. ñaar ko benn lay melaw man de damay dix du ma melaw. fii de doo ko am. dix laay am ko melaw dix. waaye ne ko bàyyi kenn laa noppi yow. kenn soxlawu la. yow kenn laa soxla yow ni nga bindoo yow rek yaa ko bindoo. te xoolal nekk nag sa xarit si kër gi lu tax man damay dépassé wax dina jeex dégg nga baal li mu la. waaw man. sinon ma woo ko lim génn la kii. gaaw gaaw. waaye nag dara la toog rek la te nga téye sa laam. mun téye sa laam. wala ñu génne woon. doo wax. maa ngi ñoo fa. tey jii sa bagage yaa ngi ñëw. yeah yes thank you very much. yes weekend. xaw ma yes weekend xaw ma nga ëppoon nag doo ma arrosé bi couleur bi commencé woo xam naa ma demee ba tey arrosé woo ko. ah fu ne ma kii la wax di nga arrosé moom. waaw ah, doo ma def. jaaw maa ngi tëdd fii ñu noppale ko. da ngaa fekk trop yow nga def dagan. ma ma tëdd foofu. tey dóor waar. dóor waar moo ñu waar. tey dóor waar moo ñu waar tey liggéey rek njàpp gën ciw lay laa ilaha illallah bay saar la ko doom saar bay saar yaay saar xam nga ni ngeen mën a mel parce que yow ci biir yàqu xew mi de loo xam ne ma ngi tax laa féet xoolal saar man yow laa am sa papa sangara rek sal bu ñëw ni ma kaay yi dafa bàyyi ma ne dex rek ma tey damay dax nga ñibbi dëkk boobu. alhamdulilah ndax nga dem kër gi. ay waay. saa xool ngay wax xam ne man mag laa dama sax karaw bi suuf sax karaw suuf bu baax nga dem man fii laa xam li ma dëkk bàyyi ma ba doon nekk laa fee li ma ma dee am ah. xam naa ne yaay xolam loo ko mu def ko dégg nga bàyyi ma doon fi seen bi lu gën a mën a yàq rek maa ngi ko ñaan rusul lii ñu mën a lool rek li xool xam naa la waaye tey nag fekkee nit mën a yàgg naa fi mënul ko fecc waaye tey mi sama booy xaar ma kumba yow laay nekk ci connexion bi rek la lan la fooy connecté sa gel vraiment ton problème lan la yow dima dama fii nga toog duma tere ay connexion nga toog fi di wax sa gel yi mais am naa droit ma connecté loolu yëpp intéressé ma ñoo ko moom intéressé yow ma tax nga da ngay dàq Aïssatou xam nga laa lay xamal que ça soit la première fois et la dernière fois damay wax ay wax ñoo ko bàyyi ñoo ko bàyyi ay dossier am naa ko kër gi maa ko moom maa ko jëloon man maa ko dàq. yow dimbali ma mënoo bàyyi kër gi yaa ko moom kër gi moomoo ko kër gi maay borom yaa ngi dégg ñoo ko bàyyi ndax nga bëgg koo daaj mooy sa secret yi mu lay génnaat sa doxaat bi nga nekkee day jeex. damay damay doxaan damay doxaan damay doxaan damay doxaan. yow laa waxal damay doxaan. da ngay doxaan kay. maa tey. yow bëgg ma dimbali ma yow xam. yow merde. maa tey laa la wax maa moom sama bopp maay xool ku ma neex ma doxal ko ay la wax. sa bopp yow moomoo sa bopp nga duggee man nga sànq yow. moom ma sama bopp sa bopp. est-ce que laa lay xamal dafa doy. doyul doyul tey doy suba tu as intérêt à changer. yow ma maa tey doxal lu ma neex lay def. fii maa ko moom maa fi dogal ku ma neex la fii moomoo fi dara. fii li fi nekk yëpp maay borom. maay tukki di ñëw di tax yow moom yaay espèce bu mag bi dama lay arrangé ngay dof dof la yow nag yaa ngi may bëgg a télécharger te di nga ma am dama ko ma lan la yow soob nga ah yow yaay kan dina soo ma du gis nga def ñoo ko bàyyi noonu laa def naa la wol ba nga mel ni tige dege espèce de salaud caga bi nga doon. ca yaay xam morom mi. waaw moo tax ñu tase. moo tax nag nga war a régler mooy xam morom mi. déggoo li ma la moo tax nga moo tax ñu tase loolu tax nga war a régler yow ma kumba nag yow de nag maa nga régler. yow ci kër gi la dégg nga ma waaye fii man ak yow. yow li nga nekkee xam nga ah! ah! ah, da nga doon taxaw Khadija Khadija fii du fi daal la ko man dañ cagatu gi au moins sax su ma ñëwee di la jox muy neex waaye yow nga xam ne sa benn daal sax du yegg. waaw dangaa sàpp jërëjëf. waaw boobu de ci ngay dee yow sama sàll boobu ci ngay dee soof ba bëgg a dee. waaye jeex na c'est trop tard fii de maa daal yow ba nag yow picc ak peer. dee rek ñuy tàggale nga suul ma mbaa ma suul la. man dee naa maa ngi desatuma benn bi. na nga war na la wuti yow waxee woon si ay jigéen loolu woon si ay jigéen. man toll ma woon nii yow man mënuloo ma dara. dee di am na lu ma la waxoon démb. la ma waxoon fii laa lay teg du ma la may sa baat dinaa la torturer. barki Serigne Sall soxlawu loolu. fii ngay toog soxlawu ma loolu yow mi laay torturer yow. yow laay torturer te gisagoo dara li lancement la film bi ñëwagul yow nag ma bañ a moytu sa kër gi dama lay rey est que man ngay dóor yow. yow mii laay dóor. léegi dóor mi ngi ñëw. lan moo may dóor. ku ñu sa jëkkër yàq say doom. bu yeboo waaye jëkkër ju mel ni yow yow sa saa gi dama lay rey bu leen nag laa wax moytu sa bopp bu Soğuk baba geldi. dox de kii kii kii kii dafa def erreur correct te du ko war dara li koy dóor mi ngi ñëw. Ma chérie boy. téléphone sonné na ma chérie